ay tànk jëm ba ci yow waxtaan ak yow ngir lan ngir lii nu woote du li nit tàmm woote ndax nit ñi li ñu miin mooy parti politique du parti politique nit ñi li ñu miin mooy coalition de parti politique du coalition de parti politique waaye day politique li parti di def da koy def li coalition de parti politique def da koy def waaye li yooyu di def te méngoowul ak lu ñu jàpp ne lu baax la ñun duñu ko def waaw benn bi parti politique am na njariñ yu bari kenn mënu leen xarab ci wàllu woowu ndax nag li parti politique indi senegal bari na waaye li nga xam ne moo négatif ci moom mooy tëju gi ndax ab langue la rek maanaam am ku bokkul ci langue boobu dàq na la loolu bëgguñu mu bokk ci fal askan bi beneen bi mooy coalition de parti day yaatal yaatal googu nangu nangu ndax moo tax ñu woo ñëpp waaye séddoo lay jur paccoo ngir képp koo xam ne bokkuloo ci parti politique doo ci bokk te bu ñu àndee dañuy wax li ñuy wax marcher séparément frapper ensemble unité d'action la bu ñu xasee jël dañuy séddoo dañuy paccoo te loolu baaxul aussi te loolu kon fal askan wi du jël loolu dinañu jël yaatal gi waaye duñ jël paccoo bi looloo waral mu nekk un front fal askan wi fal bi front la c'est un front pour l'alternative de ce point de vue front bi pare na pour accueillir ku bokk ci parti politique accueillir pare na pour accueillir parti politique ci boppam pare na pour accueillir syndicat pare na pour accueillir organisation de la société civile pare na pour accueillir nitu diine moo xam daara la moo xam nit la ci boppam moo xam taalibe la moo xam kuréel bu mu manti doon maanaam képp koo xam ne yëg nga sa bopp ci askan wi te nga nangu te nga nangu ne askan wi njaatige te yaay surga am nga fi place kon lii jógul contre un parti politique jógul contre une coalition de partis politiques jógul contre le président de la république jógul it contre Idrissa Seck ndax ndax dama gisul mu def ma lu war a tax ba tax may teg lu koy daaneel dama bëgg ku nekk ci réew mi ngay président de la république di président Idrissa Seck nga xam ne lenn ma ñor mooy ñu ànd fal askan bi ki may mën a jàkkaarlool mooy koo xam ne dangay wax walla di jëf luy jëmale askan wi ci suuf ku ko manti def nag ak ko manti doon dinaa jàkkaarloo yow jotewuma xuloo xulooluwuma te ñi may àndal bu ma sañoon du ñu nekk ci dëkk bi di werante di tontonte ak di coow ndax senegal li leen yàgg sonal ba tax ñu bari banque seeni yoxo mooy coow yi xuloo yi ak xaxarante yi ba ma ñibbisee ci jagadi gi dama wax ñépp ni xawma li passé képp koo xam ne mas naa wax walla ma def lu ñagas ci yow jéggalu naa la képp ku ma ko mase wax mbaa nga def ma ko jéggal naa la waaye li ci sama kanam fasatuma yéene wax walla jëf loo xamante ne dama ci jublu te di ko tey luy naqaral doomu aadama waaye nag na nu may jàmm na ñu may jàmm ndax nag tekk ak dal tekkiwul ñàkk fula tekkiwul ñàkk fay ah, góor ga góor ga dafa amoon tërgën bu rëy ci kanamam ci lexu càmmoñam mu ñàngal ko lool ba fu mu rombe xale yi di ko rey bis nag mu taxaw ne xale yi bu leen daw dama leen di leeral rek lii ma dal ba ngeen may ree fu mu jógee mu ni xaree fi amoon ma demoon ci xare bi ngir kenn du leen def jàmm ngir ngeen am liberté liberté reetaan maanaam liberté bi ngeen am bay mën a reetaan maanaam man damaa demoon xeexe ngir ngeen man koo am ca lañ ma coree waaye du ma leen mere ndax reetaan boobu njëkkewu leen ko ndax waxtu wañ ma cor am na picc mu nekkoon ci kaw garab gi di ree di sab mu ni may am mettit muy sab di ree may am métit muy sab di ree may am métit muy sab di ree mu ne xamalu tax mu ni parce que am na loo xam ne yuru picc mënu ko xam loolooy loolooy loolooy li xew loolooy li xew te xew waaw li xew te xew te sëñ xaadim loo gaydel di sama jëwriñ di ko wax moom mi nga xam ne moo ma téye ci sama loxo yóbbu ma ba ci sang bu tedd ba Cheikh Sidi Mokhtar mi ñuy ñaan mu yàgg fa te moom moo ne li xew te xew loolu mooy loolu waaw li xew te xew nag falu askan wi la te dootul xew yi ba abada parce que ñun li ñuy def yépp maanaam dañuy mottali lu suñu borom dogal rek ndax askan moom yàllaa ko fat waaw askan moom yàllaa ko fat nit ku nekk président wala nga nekk euh, maire wala nga nekk député wala nga nekk conseiller loolu yow askan wi moo la fal waaye askan wi ci boppam yàllaa ko fal daf la dénk li ko yàlla teg ci moom li ko yàlla dénk la la dénkaat mooy sañ-sañ bi te constitution Sénégal ci article 3 wax ko mu ni sañ-sañ bi askan wi moo ko moom te moo koy dénkaane wala mu doxalal ko boppam ci référendum waaye daf ca teg ne amul benn pàcc ci réew mi wala benn doomu aadama ci réew mi bu mën a aaki moo sañ-sañ boobu kon askan wi fal ko mooy faale ko faale ko mooy xam ay yitteem te di leen jaamu mooy bu la askan woowu jëlee dénk la sañ-sañam nga xam ne yow yaay surgaam yaay bàyyi faalam yow yaa ko war di dawal suba ngoon guddi soo parewul nekk surgaam bu ko laaj kàddoom bu ko laaj sañ-sañam ndax nag lii ngor mooy su fekkee na nga jóg askan wi dénk la yëfam jox la moyen yi mu àndal nga jóg ñu def la par exemple président de la république boo waree jàll ci mbedd mi ñëpp teye seen yitte taxaw donte dañoo am yitte yu jàpp ci ñoom nit ka waroon wuti dépense day taxaw xaar ba nga jàll ki nga xam dafa waroon jóg wuti lu mu faje doomam day xaar ba nga jàll ki doon yóbbu doomam mu yi day xaar ba nga jàll keneen ki amoon leneen lu mu lu ko yitteel ba mu war ko toppatoo xëy na am na ku koy dàq te bu ko rëccul mu jam ko mais bu sa convoi waree jàll du mën a jàll dañ koy bloqué ba nga jàll xam nga kon loolu buñ la ko defalee. ka la ko defal mënu ko fay kon ñun ñëpp quelle que soit posture bu ñu am sañ nañu ñun invité ñi nga xam ne ñoo yore ndomba tànk yooyu ak bu mu fi man doon ñu invité leen ne leen avenir mi ngi nekk ci ñu delluwaat seetaat suñu bopp li passé passé na ñu seetaat suñu bopp xam ne ñii ñu ñu dénk loolu sunu ngor mooy ñu delloo leen ko mooy ñu xam ne ñoom ñooy suñu njaatige et que ñun ñooy seen surga Baye Daaka Kanté sa taxawaay dafa firndeel taxawaayu Baye Souleymane Kanté ak délégué quartier yépp ñu koy rafetlu di leen wax ne engagement bi ñu jël ci seen kanam jël engagement boobu ci kanamu jeunesse bi jël ko ci kanamu taalibe yi ci kanamu jigéen ñi ci kanamu waa secteur informel bi ak ñépp ñi nga xam ne ñu ngi fi teew engagement boobu mooy fas nañu yéene ànd ak yéen ngir lépp loo xam ne gis nañ ko mu gën ci doomu aadama yi ñu nekk ci loolu nag ñaan nañ ko suñ boroom am nañ ci yaakaar ndax euh, lii nii bu ci yàlla àndee ñu am fekkee ak tal lii mooy dem te dara du ko téye ma fal askan wi mooy dem te dara du ko téye jërëjëf